gën pexem nit ndaxam fa yàllay taxee yàqkat yëggu fa fa yàllay taxee raw na bët raw na xel fa muy yokke nit ay bañam xandu fa bu yàllay taxee lëf laram yi wuuray lu diisoo da koy def ñu koy gis ko fa ba yàllay falub lar ña koy bañ yëgul ba muy séddaliw yiw ku bon nit ku fa lu seytaane ak nit di tee am dafay lu tukkee fa nit nag te say bañ na fa lu tukkee fa yonnen ba ak yàlla jëm yow loola day ñëw ku bañ randu fa ku yor say yëfit faw day mujj ñëw te naa lii ma fab ko jël say yëfa na sam xel di dal yow sa xol sedd nag sa wërsëg lu nit fab fabit ër ko fa lu nit rëy rëyu cër du yóbbaale kat cërum nit cërum nit ku bëggit ba fa dagaanal xi rek dëddu ak itteew te wut nag kerug doy lu far tëdd fa kerug doy lu moo lay naaju lor